bon jour sama gars yi voilà j'espère que yéen a ngi si jàmm moi aussi ma ne si jàmm voilà dal leen ak seen seen like mobile votre chaîne de technologie voilà ñu ngi leen demande bu fekkee ne bii mooy première fois bi nga dugg chaîne bi euh, nga abonné daal di activer cloche de notification bi aimé bi voilà loolu dinañ euh, jàppale si liggéey bi ñuy def euh, te de su fay voilà tey dañ leen andil benn astuce wala deux astuces yoo xam ne dina mën a permettre nga économiser sa connexion d'internet voilà da nga yor connexion nga toog ba mu yàgg nga wala nga jënd ko tey suba mu jeex voilà tey dina leen jox deux astuces yoo xam ne dina leen permettre nga économiser sa connexion internet voilà première fois da ngay dugg paramètre voilà da ngay dugg sa paramètre téléphone nga dem réseau et internet voilà léegi ñu cliquer fi ñu bindal réseau et internet voilà léegi bu tëjee ko dañuy dem xool fi ñu bindal utilisation des données voilà léegi ñu cliquer fi ñu bindal utilisation des données voilà léegi boo ko euh, cliquer fi mooy tijjee voilà léegi première fois bi ñu def mooy day dem cliquer économiseur de données voilà économiseur de données voilà léegi moom la ñuy cliquer voilà léegi bu ñu ko cliquer automatiquement fi may tijjee ko voilà mu ne la euh, utiliser l' économiseur de données voilà da ngay fekk mu ñu désactiver ko mais yow da nga koy activer voilà léegi première fois bi euh, première fois bi. da ngay dugg euh, économiste de données nga activer ko voilà léegi boo ko activé ba pare léegi nag euh, dañuy dem dugg yan application wala yan yan voilà yan application lañ ëpp yu ñu connecté te yi nga xam ne maam day jël day jël suñu connexion lu bari voilà moom it euh, voilà ñu def ko économiser voilà léegi boo génnee benn pa léegi da ngay def da ngay cliquer fi mu bileel consommation données application voilà consommation données application moom ngay cliquer voilà léegi boo cliquer fi may tijjeeku fii nag dalay wan euh, application yëpp yi nga xam ne day euh, day day day consommer si sa téléphone bi voilà day consommer connexion bi maam day jël si sa connexion bi bi nekk sa téléphone voilà léegi première fois bi ñun day xool application bi nga xam ne moom lañ ëpp lu ñuy connecté voilà ñu dem ñu dem def ko économiseur de données voilà ñu économi ñu économiser ko voilà léegi première fois bi dañuy dem jël WhatsApp. voilà ndax parce que WhatsApp dañuy bëri liñ si connecté voilà léegi boo euh, kii tijjee WhatsApp fi may tijjee voilà si suuf ma ngi lay defal euh, consommation données euh, son restreintes voilà léegi da nga koy da nga koy voilà léegi da nga koy activé voilà léegi boo activé boo boo activé léegi nag ban moo si des da ngay dem si paramètre d' application bi voilà léegi boo cliqué paramètre d' application WhatsApp la la yóbbu voilà léegi boo boo xoolee. Voilà, si euh, comme gérer des déstockage, utilisation des réseaux. voilà mu defal utilisation moyenne donnée pour appel voilà utilisation moyenne d' euh, moyenne moyenne donnée pour appel boo cliquer voilà appel yi nga xam ne da nga def moom day wàññi connexion bi voilà connexion bu daan jël lu bëri voilà da koy wàññi léegi day nekk fi nga xam ne mooy ëppal importance muy qualité de changement des photos voilà léegi boo duggee da ngay fekk mu def automatique léegi da nga koy yóbbu fi mu la bindal économisteur de données voilà léegi lii dina tax bépp photo bu dee qualité da daan jël euh, connexion bëri da la koy wàññil voilà léegi dañ dem fi ñu bindal les messages vocaux sont téléchargés automatique léegi ñu jël euh, en utilisant des données voilà léegi nag bi bépp boo xam ne rek ko si woo ko léegi bu ñu la si envoyé photo feeg moom rechargé woo ko moom du wàcc si sa téléphone voilà léegi dañuy dañuy xool yi nga xam ne intéressé ñu ko ko voilà bu dee wifi nga utiliser nga dem bépp boo xam ne euh, bépp boo xam ne intéressé wu rek voilà moo nga xam ne bu ñu la si envoyé bu ñu la si envoyé euh, bu ñu la ko envoyé feeg ko si woo moom it du wàcc si sa téléphone voilà léegi dem nañ si YouTube ba pare léegi day retour dem YouTube voilà léegi dem na WhatsApp a pare ñu retour dem YouTube voilà léegi day moom it day day day dañ koy def économiser de données voilà euh, voilà léegi ñu si paramètre euh, d' application voilà léegi ñu def retour voilà bu ñu defee retour dinañ gis fi mu ñu économiser de données voilà économie de données voilà léegi bii nag euh, boo ñu xoolee si kaw mu ngi defal mot économie de données voilà bii nag bu ñu ko activé. Euh, moom bépp boo xam ne rek euh, day day économiser données bi moom da koy direct da koy activé boppam automatiquement bu dee wasano yaay xool yi nga xam ne intéressé na nga nga nga nga nga nga nga kose euh, ko voilà léegi nag comme que voilà comme que def nañ suñu WhatsApp def YouTube ba pare voilà léegi nag après voilà yeneen yeneen yeneen application yi léegi nag day xool yi nga xam ne bëri yoo xam ne dañ koy dañ koy utiliser tout le temps léegi nag voilà bu dee Play Store bëri luñ siy dugg voilà léegi boo xoolee ma lay données en arrière-plan voilà comme que moom day utiliser données en arrière-plan léegi dañ koy décoché parce que bëri luñ koy luñ koy utiliser voilà léegi euh, voilà ñu cliquer données en en arrière-plan ñu désactiver ko voilà ñu dem xool beneen bi nga xam ne bëriwul moom it luñ si connecté voilà. voilà muy Google euh, muy service Google Play voilà bii tamit euh, day conseil si te bëriwul luñ si dugg voilà moom it ñu désactiver ko. voilà bépp boo xam ne rek bëriwul loo si dugg rek euh, moom it mën nga koo désactiver comme que WhatsApp ak YouTube euh, ak yeneen application yi euh, day bëri loo xam ne day del si dugg moo tax duñ ko duñ duñu désactiver en arrière en arrière plan bi voilà léegi nag bépp boo xam ne rek solo woo wala bëriwoo si dugg mën ngaa dem désactiver en arrière plan bi loolu dina tax sa correction bi maanaam boo ko boo ko jëndee muy gën a sakkan voilà sama gars yi léegi ñu ngi leen jox rendez si beneen vidéo ak si beneen astuce ak Laye Mobile jaa ngeen jëf